bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raaximiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 di beral nuyoo jàngkati alxuraan yi ñoo ngi nuyu it jàngalekati alxuraan yi di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan borom bi subxanahu wa mu boole ñu suturaal ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne waxtu wi ni ma koy faral di waxee lu mu teel teel ñu ànd ak ñun jotaay bi def ko muy seen jotaayu wéttal def ko muy seen jotaayu nafar looloo tax ñu yëg loolu ba. léeg sax ñu génn réew mi lu mel ne jamono ji ñu nekk waaye bu waxtu wi jotee ñu def pexe yuñ man ba ànd ak yéen ci jotaay bi moo tax ñu ngi jéggulu ci bépp bur wi boo xam ne dégg ngeen ko ci biir waxtaan wi wala rëcc-rëcc boo xam ne am na ci du suñu coobare waaye suñu yéene mooy ngeen dégg ñu ànd ak ñun ci jotaay bi ànd ak ñun it ci bind bu bees ñoo ngi ndokkeel bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel suñu jotaay bi ñu mujje woon a def ci altine ji ndax bindu démb bi dañ koo baamu ñu ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu ngistal nekk bunt boo xam ne dañ ko doon door a tàmbali waaye mu nekk jikko joo xam ne ci jikko yu baaxut yi la bokk ngistal dafa nekk jikko ju baaxut waaye dafa nekk jëf joo xam ne dafa nekk bakkaar ndax jëf ju baaxut mooy def jeexital ci nit ba mujj nit ki jikko woo ko bu ko jikkowoo mooy da koy aadawoo maanaam ñu ne aadawoo na def nangam mooy baaxoo naa def nangam parce que aada li muy tekki rek mooy luy dem ak a dellu loo xam ne nit ki da koy faral di def di ko baamu di ko def ak a defaat ñu ne lii de diw da koo aadawoo def bu dee lu baax alhamdulillah waaye bu dee safaan ba nag mu nekk loo xamante ne nii moom bañ koo aadawoo mooy li nga xam ne moo gën moo gënal lislaam itam ci bëgg ko aada woo wala mu nekk jëf joo xam ne nit ki da koy faral di ko jëf aada yu baaxut yooyu wala nga ne jëf yu baaxut yooyu moom lañuy wax jikko yu baaxut yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwoon ngir dindi ko ci nit ñi te lislaam itam jubluwaayam du dara lu du defar jikko moo tax mbir mi moom mën a julli baax na mën a woor baax na mën a saraxe baax na waaye am na solo itam nit ki di xool ba xam ndax li julli di def si mi ngi koy def ci moom wala déet ndax li koor gi di def si kooram gi nga koy def ci moom wala déet ndax li joxe alal di def si alalam ji muy joxe mi ngi koy def ci moom wala déet bu loolu amee rek njariñ yi tàmbalee am bu loolu amul nag mu nekk li ñuy wax perte wala li ñuy wax woru woru mooy di njortu dara yaakaar ne lu baax la ndekete yoo waa ji li muy njortu ay naxi neen la ci moom yal nañu ci yàlla musal jikko ji nga xamante ne jikko ju baaxul la di jikko yi ngistal te mooy jëf ay jëf yoo xam ne nit ki da koy jëf waaye jublu ko woon nit ñi képp tax mu jëf ko yàlla taxut waaye nit ñi rek la bëgg ñi ñi maanaam ñu naw ko ca benn mu nekk aw tagg wala mu nekk ak wonewu jëf jooju moom lañu wax ngistal boroom xam-xam yi di ko boole ci bakkaar yu mag yi yemuñ ca waaye dañuy wax ne sax mooy bokkaale gu ndaw bokkaale gu ndaw ndax bokkaale gu mag moom leneen la waaye maanam ngistal mooy nit ki di jëf-jëf joo xam ne parce que jëf ji dañoo bëggoon rek mu doon jëf joo xam ne day sell ñeel yàlla wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisiina lahu diin loolu lañu borom bi digal maanaam ñu jaamu ko waaye ñu sellal jaamu gi mooy li ñuy def te yàlla tax ñu def ko te yàlla tax bañ caa jublu leneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu Seydina Omar bu siiw ba ne woon na baaxu jëf yi mi ngi aju ci yéene yi jëf balaa baax day fekk yéene ji yéene ji lal jëf ji baax innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa kon ki nga xamante ne day jëf ay jëf waaye lim ci jublu mooy won ko nit ñi ngir ñu waxtaane ko lim ci jublu mooy maanaam feeñal ko ci jëmmi nit ñi waaye jubluwu ci borom subxanahu wa taala loolu mooy ngistal ngistal boo ñëwee ci borom xam-xam yi ci wàllu yar danañ ko séddale léeg-léeg def ko juróom juróomi xaaj boo ñëwee ci imaam Xasaali euh, day wax ne ana riya bi xasabi maa yura bihi maanaam ngistal day rek kemtulaayul li nga xam ne moom la nit nit ki di wone ñu ne juróomi xaaj yooyu bu njëkk bi mooy li ñuy wax riyaa u fi diini bil badani wa dalika bi idhaari nuxuuli wa safaari li yuulihim li yuuhima bi dalika shiddati ijtihaad wa idami alxusni ala amri diin wa xalabati xawfi alaaxira ngistal boo xam ne daa jëm ci wàllu diine nga xamante ne nit ki day jëf ay jëfam moo xam lu jëm ci wàllu lu ñuy jaamoo yàlla la nga xam dañoo xamoon ne jëf jii ku koy def yàlla nga ko war a defal nit ki di ko def nag waaye nag mel ne moom da koy def ngir nit ñi da koy def ngir won ko nit ñi da koy def ngir won ko nit ñi maanaam moom daal bu nit ñi teewee ci seeni bët kenn gënu koo jàmbaare bu ko nit ñi noppee gis ab yaafuus la ci boppam dong la nekk mën naa am ci biir nit ñi kenn dàqu koo julli waaye bu wéetee moom dong julliwut te moo ne bi nga wéetee yàlla mi taxoon nga doon julli mi ngi fa te sax foofa la gën a soxlaa sa teewlu gi foofa la la gën a soxlaa ci ràndiwu boobu ngistal amaat geneen ngistal goo xam ne day am ci anamu nit ki façon bi nga xam ne moom lay jëfe jëf ji façon bi nga xam ne moom lay jëme jëf ji nga xam ne mën naa doon euh, li feeñ ci moom col goo xam ne ngistal a tax mu soloo ni am na ñoo xam ne mën nañoo dem ba def jeexitali sujjóot ci seen kanam nga xam ne kanam gi dana am ab xoosu xoosu bu ñuul ci jëbi néew ma jëbi jëbu ñuul looloo koy waral waaye eh, ngistal man naa yóbbu nit ci loolu eh, ngistal dana feeñ ci ak col eh, ngil ngistal dana feeñ ci yëpp maanaam nit ki mën nay sol loo xamante ne ngistal la ci jublu ci ñaari anam mën naa doon col gu xumb goo xamante ne li mu bëgg mooy nit ñi gis ko waxtaane ko waaye waxoon naa ci bind yi ne ngistal ci xol lay nekk maanaam pas-pas la boo xamante ne ki fas yëf yi rek moo mën a xam lim fas lim ci jublu ngistal itam mën naa doon nit koo xam ne day mel ne ku dëddu àdduna di sol yëre yu tilim waaw di sol yëre yu tilim bàyyeeku noonu bàyyi ay weexam bàyyi lépp waaye lim ci jublu it mooy nit ñi waxtaane ko wax ne ah eh, diw kat daa dëddu àdduna moom gis nga ko nangam nangam moom fonkut ak col fonkut nangam waaye waxtaane goo ku nit ñi di waxtaane looloo ko neex looloo ko ne xamoon ne sa bakkan bi lim tàmm moom jig na ko waaye saa yoo juuyoog moom rek mu tàmbulee naqari ci moom moo tax ki nga xamante ne dane damay woor man mel ne kuy woor altine ak alxemesi yi waaye jaamu yàllam googu léegi siiw na ba nit ñaa ngi ko ciy tagg mën naa dem ba mu jàgg day neex ci moom ay sew-sew da ciy dugg ba nga xam ne boo moytuwut wóoratul ngir yàlla waaye day woor ngir nit ñi parce que ñëpp a ko koy bàkk ñëpp a ko koy waxtaane borom xam-xam yi ci wàllu yar dañ daan wax ne sax ngir nit ki yar bakkanam bu boobaa mooy mu juuyoo ak bakkanam boobu mu juuyoo ak bakkan bi waaw mu juuyoo bakkan bi moo tax mag ñi daan nañ doxale lu mel noonu nit ñëw ne duma naan soow ñu ne la da nga koo bàyyi ndax wér gu yaram wala da nga koo bàyyi ndax sa teeyu bakkan rek ndax bëgg a xeex ak bakkan bi mu ne dama koo bàyyi ndax xeex ak sama bakkan ndax bëgg a moytandiku yu neex yi ba mu ëpp ndax bakkan daa gaaw fuuy ñu xam ne lii ba nga ko dalee def yàgg na ba neexatul ci bakkan bi bakkan tey li metti ci moom mooy naan ataaya wala naan soow wala tëdd di nelaw léegi ñu ne la tëddal di nelaw ndax nga juyoog bakkan bi ndax nga juyoog moom maanaam li diis ci moom loolooy li koy yar li diis ci moom loolu mooy li koy yar waaye ak colak yanga xam ne moo ci aju yépp la ci aju rek mooy nit ki def loo xamante ne da koy toppe sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ caa jublu ngistal ki nga xamante ne dafa sol yam gàttal ko mu weesu ay wóoma mu yamale ko fa bëgg a ne man damay dund sunna loolu nag col la goo xam ne am na ay addila yu wóor yu koy dëgëral yoo xam ne ab jullit war na ne mën a soloo waaye su fekkee waa ji da koo sol ngir jublu ci aw tagg képp da koo sol rek ngir bëgg a ne man fii laa bokk nga xam ne moom ab couleur drapeau la ko bëgg a def waaye àndut ak pas-pasub sellal loolu beneen àtte lay am waaw taxawaay am na ay sew-sew yu am foofu li ñu wax nag sàmmoonte ak ñi nga xam ne ñooy àdduna mbiri ñooñu àdduna ci wàllu col col gu baax ak waruwaay ak dëkkuwaay bu yaatu ak defaru ak ya nga xam ne moo ca aju loolu man naa bañ a tekki ak ngistal maanaam nit ki du dégg ñu ne ngistal baaxut mu ne kon man dootuma sol ay yére yu baax du dégg ne ngistal baaxut mu ne kon oto bi génn bees ma war koo mën a jënd duma ko jënd déedéet ki yàlla xéewale mu mën a jënd oto boo xam ne méngoo naag moom na ko jënd fi mu ne ba cim tabaski buñ ci àggee jàmm léeg nga dégg ñu ne jëndum tabaski un million loolu ak yàq la mën naa doon yàq ci ak wet waaye mën naa amit waa ji bu génnee ci alalam deux cent mille jënde kom xar wala cinquante mille moom yëgagut ne tabaski na yëgagut ne tabaski na ndax borom bi subxanahu wa taala ni mu séddalee wërsëg yi ak ni ak ni mu tolloo bokkut wala ku li loolu ay sew sew dafa am ci biir. yëf yu sewa sew yoo xam ne euh, xam naa liy gën mooy waxtaane rek grande ligne yi ni mu tëddee waaye ni mu doone ay atte yu tegu ci kaw jëmmi nit kenn ku nekk xool la dal ci kawam nan la dawe nan la dale ci kawam ndax mooy tax duñ juum ndax lu ko mooy nit dana euh, gis nit muy jëf mu jàpp ni kii koy ngistal la te fekk na kooku xolam bi daa fees dell ak yàlla yàllay kese la yàllay kese waaw Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum mas na maa dégg muy nettali benn xew-xew koo xam ne dafa nekk ca tool ya ak i dongaam waaye ndeysaan jamono metti lool mu dëkk foo xam ne doy na waar lekk ga doy waar col ga doy waar waaye mu yabal ay dongaam bu doon ñëw ci taax yi ne ko boo demee nag ma nuyul diw ba mu ñëwee dem di nuyu ji kooka ba mu ñëwee fa mu ko fekk mu dëkk daanaka daa mel ne pale maanaam taaru lool rafet lool yëf ya xumb lool muy jàmmanteeg waaja kam fekke ca taar boobee ak liggs booba kooku ne ko ànd sa sëriñ ba mu ne ko ma nga fa mu ne ko ma nga fay bëgg àdduna rek <laughs> ma nga fay bëgg àdduna rek léegi eh, waa ji jaaxle moom bi mu ñëwee wax ko sëriñam ne ko ah man kat kan ma yebaloon daf maa laaj lu ma jaaxal ndax damaa dem di waxtaan ak moom ba ci biir waxtaan mu di ma laaj ne ma yow yaa ngi fi di bëgg àdduna rek te moom ma fekk ko mu bëgg àdduna lool fa toog mos photo yi yam teg xeeti tàpp yam teg ah décor yam décoré kër ga oto yu rëy yam gaare ca bunt ba maanaam coowa a coow coow ba mel ne ñun rek buñ demee ci buñ jógee ca maanaam ci ab barab dem ci barab gis fa loo xam ne amut ca barab ba ñu ba ñu bàyyi ko façon commentaire biñ koy commentaire sëriñam ba ne ko wax na dëgg de ndax moom day ni ma ko xamee yii nga wax ni yépp ay mbiri àdduna rek la ko jàppee waaye lépp ci loxoom la yem waaye dara àggu ci ci xolam maanaam dara àggu ci ci xolam xolam ba yàlla doo nga ko fees allahu akbar xolam ba yàlla doo nga ko fees kon nit dana gis nit mu solu wala mu defaru wala mu mu mel ne nangam ci olof moom aw waxinam danaan diw daa bëgg àdduna nga ne foo ko teg mu ne daa bëggu col ndax lii la soloon démb nangu koo solaat tey <laughs> waaw fekk bëgg àdduna day feeñ ci aw yaram waaye nag palaasu adduna bi ñu bañ nit ki bëgg ko mooy ci xolam bi xol bi am ci palaas adduna moom bul ko jox yenn solo si ci sa palaas mu ne ko nag moom yooyee nga gis mu am ko yëpp euh, ci loxoom yi la yam waaye aggut ci xolam bi amu ca dara lu muy feeñal loo xam ne ngis ta tax ngis ta tax man nag fii ma toog nii wóolooguma sama bopp ndax bu ma amoon lim lool yi mu am ndax danaa ko bakkoo wala danaa ko tiitaroo wala déet xam naa lool tax mu waxee yow xeetu wax jooju mbokk yi ngistal baaxut ngistal baaxut ci jikko yu baaxut ji la bokk kiy jëf nag moo xam li tax muy jëf ndax daa bëgg mu siiw siiw gi ndax da bëgg a bàkkoo ngir wone ko wala daa bëgg mu siiw ndax ay nit roy ca mën a defee noonu ndax léeg nit mën naa fekk kuy toog di waxtaan mu yëkkati alalam jox ko wala ñu am ab tuuru famille mu ne maay joxe nag wi wax ko ci groupe whatsapp bi ñëpp dégg ne Euh, soxna Aana Njaay nee na mooy joxe nag wi waaye lim ci jublu du ngistal du jaay doole ci biir famille bi waaye lim ci jublu mooy am keneen ku ne maay joxe nangam ndax buñ ko bëggee cotiser du mat waaye buñ ko sasoo li ñu bëgg a dana mat am keneen ku ne maay joxe boisson bi am ku ne man de maay joxe ndox mi am ku ne maay joxe nangam waaw léegi nag ñooñu am nag bay joxe ñoom duñu am problème waaye sama kalaat gi ne ci biir groupe bi te amuñu luñ joxe nag ñun ñoo joxe ba noppi am bàkkaar foo demee ci yu mel noonu ñi nga xam ne ñoom fa suñu yéenee joxe dara ndax amuñu ñooy bañ a joxe ba noppi am bàkkaar naan moo day ngistal rek waaye bàyyi na farata jum defut de waaye yow lu sa lu ciy sa yoon dañuy laajal jàkka ji jenn waaye ne man def naa ci un million yow amoo un million boo joxe neel yàlla na ko yàlla fay te bareel ñu mel ne moom suñ borom fay ko fay la waaye déedéet da nga naan ah romb na jàkka yu bari yum defut boo demee am na mbokk mum jëndalul ordonnance de yow ca ngay commentaire di ca commentaire di ca commentaire ba diis gan na ki bàkkaar yow joxewoo alal far jële cay bàkkaar sa yoon nekku ci bëgguñu nit jàkkaarloog nit wax ko ne ko da ngay ngistal loolu yonent bi jàngalewu ko bëgguñu nit jàkkaarloog nit wax ko ne ko ab naa féq nga li xew léegi nga xam ne nit mën naa commentaire ci photom nit sax bind ne ab naa féq nga nit ne xappit ne senegal daa bari ay naa féq waaw loolu moom wax dëgg yàlla lislaam jàngalewut noonu bëggul woon waxin wi di demee noonu ngistal dafa am jëf yoo xam ne bàkkaar yoo xam ne bàkkaaru pas-pas la ci xolu nit ki la nekk te mën nga cee juum nit da ko xeeb fii ci àdduna ëllëg yow malax yaa mu bokk ca sang ya nekk ca kaw kaw nga yox xamtiku ba sa loos di metti te doo nit da nga fii ci àdduna yow malax mu bokk ca ña gën a suufe kon mbirum xol dañ koy bàyyeeg borom bi subhaanahu wa taala naka noonu ngistal dana nekk itam ci wàllu diine wàllu diine bu ma ko waxee bii yoon mooy ñoñ diine ñi ñi nga xamante ne nii dañuy taxawee diine ak yi nga xam ne moo ci aju di waaraateeg di jàngaleeg di def yi nga xam ne moo ci aju ndax nit danay jàngale wala muy waaraate te fekk bëggu tàgg moo tax bëgg bëggu rek moo tax maanaam jubluwaayu wax ji mooy ñu ne diw ak am xam-xam diw ak am xam-xam ba nit ñi jàng sax ca téere ya dañ doon wax ni bul jàng xam-xam ngir mën a nettali ngir mën a nettali di jàng te yow li ngay jàng bëgg a mën a nettali dong moo tax waaw laa tatlu banna mujarrada riwaaya loolu sëñ Tuubaa waxoon ci téere ba bul jàng xam-xam eh, ngir ngir nettali kese waaw eh, waaye xam-xam leer la leer lay doon gu ànd ko xàmmee waaw bal innahu nuurun maa diraaya waaw xam-xam day doon eh, ak leer waaye itam di yéegal boroom mu jëm ca kaw kon ngistal ci wàllu diine baaxut nga xam ne waaraate weeg wax ji la nga ci jublu mooy nit ñi ne di wa am xam-xam nit ñi mën nañ koo wax de waxal rek nit ñi moom mën nañ koo commentaire mën nañ koo wax ngay wax ay xikma di nettali ay ay ay ay yëf di nettali ay affaire nekk ca rek nekk ca rek waaye nag euh, jubluwaay bi naga fexe ba am ko ci fii ci àdduna ndax danga perte ki am alal di ko joxe te fekk taggu nit ñi rek la ci bëgg na fexe ba am taggu nit ñi ndax bu amul taggu nit ñi dana ñàkk alalam ta du am fayug yàlla ki am xam-xam takk rajo yi di wax te taggu nit ñi rek la ci bëgg na fexe ba am taggu nit ñi ndax bu amul taggu nit ñi dana wax ba sonn te du am payug yàlla waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko nettali ci xadis boo xam ne ñaar ñii dañoo ñëw ci yowmal xiyaam ci seen borom suñ borom laaj borom alal ji ne ko joxoon naa la alal ci àdduna loo ma ci defal defaloo ci dara waa ji yëkkati loxoom ne yàlla defal naa la ci dara kay ndax man dama daan joxe fuñ ma sa laajee nangam nangam wax wax wax borom bi ne ko yow xam nga ma xam ne la nga doon joxe danga ko doon jox rek ndax nit ñi tagg la moo tax tagg nañ la ba tàyyi de nañ lay bés waxtaane nañ ko deba nañ ci yow fépp tiitaru nga ci ba tàyyi looloo taxoon nga di ko def waaye man taxuma woon <laughs> borom xam-xam bi itam borom bi laaj ko mu ne ko man daanuma nopp lu guddeeg bëccëg yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu yàlla musal ci loolu waaw ndax coono bi ci am yépp nag bu ci nit amut payu yàlla perte na borom bi ne ko waaye loolu da nga ko doon def rek ndax nit ñi ne da aay wala da ngaa bari xam-xam wala da ngaa mën a jàngale waaye man taxuma woon bu boobaa itam pertement daal di dugg yal nañu yàlla musal ci perte googu moo tax mbokk yi kuy wut wutal ngërëmul yàlla kuy wut wutal ngërëmul yàlla ndax ngërëmul nit neexut a am waaw ngërëmul nit lu sax dàkk neexut a am nit moom bu gërëmee tey bu subaa xarab borom bi nag ku xas ba am ngërëmam sa affaire baax na te ngërëmul nit ñi sax nag sëriñ ba waxoon na ne kenn mënu koo am fexe ba ñëpp gërëm la mënta am te bu la ñëpp gërëmoon te yàlla gërëmu la it du la jariñ dara kon euh, ngistal googu yi ni muy amee ci ponk yooyu ci colak ci demee nangam nangam nangam noonu lay amee itam ci euh, waa diine noonu lay amee ci xam-xam noonu lay amee ca yooyee nga xam ne day mujj bokk ci waa àdduna don koo xam ne am ngistalkat lay doon am ngistalkat lay doon waaw di xam nga wane wu mm, xeet la ci ngistal mooy yóbbu nu ci ngistal am na ñoo xam ne fi mu ne mën nañoo wane woo wane woo wane wu ba nga xam ne palaatub omelette sax buñ ko defoon danañ ko photo estati ko waaw maanaam yàlla xam na ne buñ jëndoon biteelu ndox sax boo moytuwut ñu sinab ko daal ne biteelu ndox lay doon daal di koy estati estatiku nga xamante ne mënoo defati dara loo xam ne yow da koy def rek mu nekk sa maanaam ci sa ruq yow dong waaw ci sa ruq lay doon wonewu rek wonewu nga xam ne lépp lépp dañuy wonewu léeg bo bu dee xewi xewi diine yi ñuy woote ay màggal da ngay gis ngistal la koy nuru nekk ci biir bari lool bari lool damaa tudd màggal waaye xewi diine yépp rek waaw yoo xamante ne nii nit ki waroon na ko mën a def mu yem digganteem ak ñam koy defal waaye léeg mu def ko mu feeñ na fang bu fekkee ngistal la tax lu baaxut la bu fekkee ngistal taxut loolu yàlla rek moo xam ala kulli xaal wane wu baaxut moo tax maa ngi koy wax sama benn xarit Ousmane ba fële ci Jurbel ñuy waxtaan ma ne ko xanaa xamoo ne sax soxna yi soxna yi ku ci bari ay yére rek bari ab génn fi mu ne soxna soo xam ne daa am yére yu bees yu bari ami takkaay mën a waaj mën a wàlli yaani boo moytu du tardé wenn xew fépp lay dem ni nga xamante ne boroom kër gu baax day bëgg gan <laughs> borom kër gu baax day bëggi gan bu fekkente ne amoo saal boo dalal say gan say mbir demewut noonu doo sawar ci amu gan waaye am na nu kër gi di mel am na nooy bindoo ku jog nga ne ko jaaral ci kër gi naka noonu itam ki nga xamante ne moomut boppam yilifut alalam waaye yim yilif da koo moom boo amee mbubb mu bees balaa am jàmm da koo sol génn boo amee oto bu bees balaa am jàmm da koy taal dem fu mu fu mu amul soxla waaw dem fu mu amul soxla boo xamee dara itam balaa noppi da koo wax ba ñëpp dégg ko kooku mooy ki nga xam ne yilifut boppam maîtriser gut boppam ci ay taxawaay ak yi nga xamante ne nii moo ko moo ko war a peeseel boppam ba taxawe ko bu boobaa nag la muy jur lépp day daal di nekk nag yoo xamante ne njariñ la du doon doon njariñu néew mbokk yi ngistal baaxut puukare wu baaxut puukare wu baaxut moo tax euh, yooyu dañuy doon yoo xam ne dañuy mujj doon yoo xam ne dañuy jurante kon beneen xeetu ngistal a ngi noonu di ngistal ci wàllu xam-xam ak ya nga xam ne moo ci aju mënoon naa gën a yaatu amaat geneen ngistal goo xam ne mooy ngistal ci ay jëf <laughs> ngistal ci ay jëf jëf say jëf di ko wone di ko wone bu fekkee da da ngay julli julli gi moom boo dee jiite nit ñi ngir nga ngistal da ngay def taxawaay yu gudd julli gu yàgg ndax wane ne man damaa damaa respecté julli gi su jóot correctement nga xamante ne boo weñ doon naaw sax ñi koy dégg ndax sa dal gi nga àndal ak yi nga xam ne moo ci aju waaye yàlla xam na ne boo wéetoo nag moom képp boo moytuwul taf taf nga noppi ca wala sax doo ko def moo tax seytaane baaxut seytaane baaxut waaw day karkaral ak a topp nit te feeg yàqalu ko rek du am li ko gënal te feeg yàqalu ko rek du am li ko gënal mooy topp nit ki ba soob ko ci paxum yàqute rek door a dëpp ndax jëf-jëf ju baax ni mu jafee nit ki xeex ba kanam ba gañe ko jóg di jëf ba kanam jugaat dab ko ne ko daaneel nga ma kat ba tënga ma ba yaa ngi koy jëf songaat la meneen songu cong moo xam ne mooy won ko nit ñi won ko nit ñi xoolal nit ñi ñi dañoo yaafuus ñoom jóguñu di julli waaye yow da am pëstéef moo tax waxtu julli wu jot nga jóg def ko ni mu waree bàkkoo ko wanal nit ñi ne leen da ngaa mën a taxaw waaw la xale ba ñuy nettali ca jàkk ja ñëw julli ñaari ràkk julli gu rafet toog werdu tuuti naafila ñu sëlmal mag ñi ne ah yow de jàmbaar nga yow sa julli gi tegu na ci yoon de mu ne leen te moo ne damaa woor sax de nga xam ne koor gi nga xam ne ñu nit ñi mënuñu koo gis sax fexe na koo tudd ci làmmiñam ngir won leen ko dolli ci mbokk yal nañu yàlla musal ci ngistal ak mboolem yi nga xam ne da koy nuru waaye dimbali ñu ba ñuy jëf te jëmmam tax ndax moom moo amuk pay te kum fay nga yëg ne fay na la yal ñu boole fay yal ñu boole jéggal ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen jéggalu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 wa barakaatu